li ñu fi indi mooy ñu taxaw taxaw sunu mbokk sunu wóllëre Abdoul Aziz Mbaye ancien ministre de la culture euh, sargal ko ci xam-xam bi ko yàlla mayoon ak itam xarala bi ko yàlla mayoon ak ci lépp luñ ko dénk def na liggéey bu ràññeeku ci Union européenne euh, ci wàllu woowu ñu ngi ko ci sant wante biñ ko dénkee itam ministère de la culture liggéey na fa liggéey boo xam ni ci man li ma jot a dégg ndax mosoon naa fa nekk def na fa jaloo jaloore kon nag nit ci àdduna su la yàlla may nga dund euh, mel ni nga war a mel liggéey nga li nga war a liggéey su la fi yàlla jëlee dana metti say mbokk metti say xarit wante li ñuy mën mooy ñaanal la yàlla yàlla moom yërmandeem yaatu na te yàlla itam képp koo xam ne kii ci àdduna def nga li li la war taxaw say mbokk féete leen fi nga leen war a féete njëggalam ak yërmandeem xejoon na lu ne yàlla na ko yàlla yërëm te aare